jërëjëf kooku di faatu Guéwal muy sargal ki nga xamante ni mooy góor gi ci ruq bi bu waxee ren balaa waxati déwén ca ca champ de course ba ca Tiwaawan waaye nag lu mu dogu rek mu fekk ko ci ruqam bi kon euh, si Bakar dara man dogul ñu rek yàlla defal ñu jàmm def jàmm ci réew mii di ci nuyu di sargal bu baax a baax nag euh, ki nga xamante ni euh, mooy borom këru soxna Astou Darame di doomam di léppam ma koy nuyu di ko ziar waaye di ziar itam Pape Malick di sunu soppe di sunu lépp di ko bàyyi xel waaye nag ni ma ko waxee rek di bàyyi xel bu baax a baax ki nga xamante ni mooy soxna Sophie bu maam Maodo ñu koy nuyu di kontaan ci moom. Euh, bunt baa ngi noonu rek euh, ngeen delluwaat euh, ànd ak ñun ci li nga xamante ni rek mooy seen waxtaan jëm rek ci wàllu dëkkandoo ak yërmande gi nga xamante ni moom moo amoon ci Sénégal te léegi ñu gis ne daal lu ci bari mu ngi wàññeeku lu ci bari itam mi ngi tàmbalee jeex xëy na peut-être jamono ni tëddee ba kenn ku ci nekk sa bopp ngay tal waaye nag ànd ak lu mën a xew rek. delloo siwaat xel yi dafay daal di am solo lool rawatina ci seen mbokkum jullit moo xamante ni wax dëgg yàlla eh, xeebul yéemul mun teyit nag yaakaaram yépp mu jël ko teg ko ci buur bi yàlla ak ki nga xamante ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waaye itam teg ko ci gaay yu baax yi nga xamante ni ñoo toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan tey doon fan su kër gi di wax na rek eh, nañu rafetal nekkin yi ak dëkkandoo yi nañu dawal yërmande ni ma leen ko waxee rek eh, kenn ku ci nekk rek xamal na boppam ne euh, fi mu nekk noonu jamono tëddee na noo xamante ni ku ñu jàppalewul doo dem te nag bari na ci ñoo xamante ni tey wax naa leen ne mënuñoo yegg ci autorités yi bari na ci ñoo xamante ni tey mënuñoo dem ba yegg fenn fi li ñuy def mooy rek toog ci seen bërëb di xaar yàlla yàlla fekk leen fa yàlla dina leen fa fekk de waaye nag képp koo xamante ni fexe nga ba mu jaar ci sab loxo yàlla mën na laa defal nga loo xamante ni doo xam fu muy yem mbokk alo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, Adama. waaw sama sëriñ. Euh, man maa ngi lay ndokkale ci encore. dëgg la jërëjëf. Euh, di ndokkale ci 2STV. Mhm, ñu lay jaajëfal. di naan yàlla ngeen ci yàgg. Hmm? ma ne yàlla ngeen ci yàgg. amiin amiin sama sëriñ. man émission bi maa ci dëkk dugg. dëgg la dëgg la si. waaw. dëgg ah, bëggoon naa sax nga ba ñu jaar ci sant bi. dëgg la dëgg la dëgg la aayul. sant bi ko jarul jaar. def lu baax moo tax loolu aayul. xam nga. Mhm. Euh, euh, bi ma ko déggee. Mhm. Euh, gis ngeen ni ma def. dëgg la walaay de gis nañ ko. waaw. Mhm. mën naa ci ko woo Pape Matar Kébé. Mhm. ndeysaan ne ko Pape Matar li ma dégg lan la. Mhm. parce que li ma dégg dégg ngeen ko. Mhm. mu ne ma ah Malick. déedéet man du ma faral du ma faral di déglu émission ci heure bii. dëgg la daf leen di fekk ñu jàpp. waaw ñoom sax ñu fekk ñu jàpp. ndeysaan. mais luñ ci mën a am dafit. dinañ def suñu kéem dinañ def suñu kéem te lay kattan. pour ñu ngi ci ñu ngi ci sax. waawaat naa ko. Mhm. troisième troisième jour bi. troisième jour bi bi ma dégg ne dara yënguwul. waaw ma woowaat ko. dëgg la. ci la ma ne ñoo ngi ci. ñoo ngi ci wallaay ñu ngi ci. waaw. Mhm. léegi man dama jaaxle ci sama dama jaaxle ci mhm. ah, man jaaxle naa ci senegal ja doy na jaaxle de. maa ngi wax nag dinañu dinañu ñu ma xam dinañu waxati na yëpp. Mhm. yàlla subhanahu wa waaw. doyal na ci jàkka yi. Mhm. doyal na ci jumaa yi. Mhm. kenn feesatu ko. déedéet. ñi ñi war a dem jàkk ji. war a dem jumaa. ñoo ngi buntu hôpital. ñii dañu xiif tëdd ma bàyyi ko wallahi waaw wallahi ñooñu nag hmm. ñooñ ñooñ njabootu sale salaatu alayhi wa sallam dëgg la kooku hmm. di dund rasulullahi salaatu alayhi wa sallam ko yàlla digee li mu ko dig hmm. dana ko dencal na ko ba àllaaxira dëgg la ma bokk ko sama ma bokk ko sama njaboot. sama njaboot wallaay dëgg la. tey jii. Mhm. ay nit ñoo ngi préparé di dem mag. mais mhm. dañuy siyaar yi si euh, yonent bi. Mhm. waxuma sax pas ba leen yóbbu mag. mais la ñuy dellu see di puukare. lang ga. lu tuuti loolu ñun ñëpp buñ ko daje ñëpp ñun ko dajale woon. Mhm. kon euh, du ñu jéegaane ji. dëgg la. ñun li ñu am buñ ko boole woon. Mhm. tubaab yi du ñu yàpp. déedéet. du ñu du ñu jéegaane ji. dëgg la. nañu jël li ñu am ñun. Mhm. boole ko bañ a ci gouvernement. bañ a compter ci kenn. bañ a ci a compter ci kenn. Mm-hmm. compter suñu bopp ñun. am na solo. ñun ñu naan ay jullit lañu. Mm. nañ compter suñu bopp. am na solo. lu ñu yàlla jox am na président. dëgg la. nañ ko delloo njabootu Muhammad alayhi salaatu wa salaam. sallallahu alayhi wa salaam wallaay dëgg la. kii li muy yàlla daf la ci jullit la. Mm-hmm. ci waa kër yonent bi la bokk. Mm-hmm. li kii kii ci ginnaaw waa kër yonent bi nag. Mhm. bu bu bu soxlee waa kër yonent bi dañuy jóg. am na solo sama sëriñ ñoo ngi lay jaajëfal. Euh, li li xam nga li tax émission bi euh, gaañaa ngi fi ah gaañaa ngi ñu ngi ci walaay ñu jigéen fii euh, fii ci euh, diaspora bi. Mhm. ñu si ay nit ñu baax lañu fi. wallaahi wallaahi ñu ngi def gest yu baax. ñoom ñëpp ñoom ñoom xam nga li tax xam nga li tax xam nga lu tax euh, kii. Mhm. demewul na mu demee. waaw. heure heure bi émission bi jaar moo tax ñu bari yëguñu ko. ba pare foofa daa métti sax sama sëriñ. dafa métti waaw dafa métti sax. foofu dafa métti le bi ñuy def. ñuy am. dugal ko ci. Mhm. duñu wàññiwul kenn dara. dëgg la am na solo. wàññiwul kenn dara. jërëjëf. nañu ko nañu dimbali ngir yàlla ak yam tubaab jëmi rasul nañu dimbali. bala ñoo am gàcce wax ji voilà semaine bii mu yem ci. ndeysaan ci lay yem benn jigéen bu dugg bu dugg keroog ne dafa ruus. ndeysaan walaay dafa ruus dafa dugg dafa dugg ne ah man ruus daa parce que sama dëkkandoo yi. man sax rus naa heureusement déggu heureusement dégguñu tubaab. ndeysaan. am na ah, solo ah waay waay nañu delloo nañu delloo euh, yonent bi lim moom. wallaay wallaay bi. jërëjëf xaalis bi xaalis bi kenn du ko duggee bàmmeel. déedéet. gàcce rek lay faj. wallaay gàcce dong lay faj. wallaay wallaay te ngi ñëw jërëjëf. jërëjëf asalaamaaleykum. waaleykum salaam baal nañ la. baal nañ la baal nañ la bu baax a baax. maa nañ la bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk moomu wax dëgg yàlla mooy kii duggoon keroog euh, te jooyloo ñëpp ñëpp itam doon ko laaj ci kon alhamdulilahi rabil alamin bi nga xamante ni duggaat na tey. njabootu siyeen gi yëpp ñoom itam ñoom ñëpp ñu ngi bëgg a dugg ndax kenn ku ci nekk am nga ci wàll waaye wax naa leen ne leen dugg du doy nañu wut kenn ku leen waxal rek ñu teg ko fii su ko defee àndandoo ak moom ci émission kër gi ñu waxtaanee jëf yu baax yooyu ndax moment bii ñu toll sax réew mi daf ko soxla ndax nag euh, bu fekkente ni euh, ñu ngi bàkku kilifa diine yi nañu wax nangam ak nangam ak nangam man keroog laa gëm ne sunu kilifa diine yi nañ leen bàyyi tranquille génne leen ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu politique ak ñoom seen bi ñu laata mën a jot soxnas Maodo biñ ko jotee mu leeral ñu kat jamono bii ñu ngi def ay ñaan ci réew mi kon li leen war ñu ngi ko def dañoo boolewul dara ki wax loolu sax moo ëpp solo allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi delloo ziar bu wér sama sëriñ. naka coono sant bu wér a wér. waaw ah, Touba laay woote waaye damay damay damay leb tudd la labal nañ la ko bu baax a baax. waaw wala bu bu la ma wax tudd sax ma dañ sant bi fan fan Fall laa tudd waaye nañ la sant dëgg la lebal nañ la ko. waaw waaw waaw damaa taal wax dëgg damaa damaa teelu émission bi ba xam lan moo lan moo xew ci moo tax na xaar moo laaj la émission bi. xanaa mbokkum jullit moo xamante ni rek wax dëgg yàlla comme semaine passée. Hmm. mbokkum jullit moo xamante ni daal euh, sonn na jaxle na te ay hmm. wayjuram dañoo jóge woon juróom bu jigéen dafa jóge woon ci diine chrétien. Hmm. nekk ci beneen diine ñu yaree ko ci kër maam Abdou nag mu jàng alxuraan jamono bii mu sonn nag. Hmm. wax dëgg yàlla semaine yàllaa ngi nii ñu di ko ñaanal ndimbal ndax mbokkam yi nga xamante ni dafa bokkul ak ñoom diine dañ ko ne hmm. ba ñu bala ñu laa mën a jàppale daal da jóge ci diine ji nga nekk ñëw ci sunu diine hmm. offensé wu ñu benn diine nag waaye sañ nañu àndandoo daal ñaanal ko jullit yi yàlla ñu jàppale ko te yàlla tax nga dëgg nga dëgg <coughs> dañ koy ñaanal ndax mm, gannaaw da bokk ci xeetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kooku kon yaakaar naa ni kenn sa wur ko ñaanal moom moom dañ koy bàyyeeg yonent bi rek moom xëy na xëy na kon moo koy moo moo koy taxul boppam. ndeysaan nit ku sell ko ay kàddoom rafet la sax wax dëgg yàlla. waaw moo xam naa ne moom moom dañ koy dañ koy bàyyeeg moom moom moom sang bi rek gannaaw gannaaw moom moom moom ah, mi ngi ci biir. Mhm. da ngeen da ngeen a nag. télé bi di di leen sant maanaam maanaam maanaam ki ci ki ci kaw ba ci ah ki ci gën a tuuti. dëgg la dëgg la sëñ Fall. ñoo sant baax a baax ci émission bi ndax yéen wax saa su ne moom lu baax lu rafet la ah ngeen ci wane. am na solo am na solo. ma yoo yoonu sama benn noo ngi sant di la ñaanal wax dëgg yàlla. nañ ko bokk sëñ Fall. waaw waaw sama sooy nag waaye dañ koy wax moom daal na toog te déglu te muñ te xam ne moom maanaam nu mu ko bëgg ak ak ak lu mu bëgg rek sama ah, sama borom dana ko dana ko ah, dana ko fekk ci noonu. incha allah incha allah yal na la yàlla dégg. waaw waaw aussi soo jërëjëf. waaw tëb ñu ko fenn nag loolu nag mu bokk ci xeetu Seydina Muhammad rek xam ne ko moom moom moom kenn du ko nenal rek. kenn du ko nenal kay. wallaay kenn du ko nenal. jërëjëf am na solo kooku di sëñ Fallou nekk fële ci diwaanu tubaa ñu koy ziar di ziar képp koo xamante ni yaa nga foofu ci diwaanu Touba toog jàkkaarloo ñun di ñu set di na rek ñaanam yàlla na ko yàlla dégg jullit yi nga xamante ni itam yàlla mën na leen gan yàlla nañ ko dégg ko ci amul dara itam te am as tuut soo ko mën a sànni rek itam yàlla na la yàlla dégg dafa am loo xamante ni gàcce lay doona ah, nañ ko waxte dee nag dafa am loo xamante ni buñ ko toppee boobu ba léegi suba ba ngoon jot rek doyoon na ci sëkk pour soxlaam faju waaye nag buñ ko toppee boobu ba léegi wax dëgg yàlla di dajale ay ñaari saako ceeb ak i nangam sangam wax dëgg yàlla kersa la ñuy am te nag amoon yaakaar ci doom aadama yi moo taxoon ñu ñëwee ak kër boo xamante ni jàpp nañu ne daal du mat ñaari fan yàlla saafara ko waaye nii la ko yàlla tuddee nañu wéy di am yaakaar rek ndax jullit day yaakaar allo. waaleykum waaleykum salaam. soxna Mbayam. waaw sama sëriñ. na def. sant yàlla bu baax tey ziar. man la maître Adama Balde. maître Adama Balde. maa ngi lay woowee Mauritanie. Mauritanie maître Nouakchott. mosoon naa la woo Gambi. dëgg la dëgg la dëgg la lool la loolu maa ngi koy fàttaliku kay Balde. Hmm, hmm. sant yàlla bu baax tey si aywa hmm. xanaa di peesalaar lay gërëm di leen gërëm yéen ñëpp. ndeysaan jërëjëf Balde. jàppale bi ngeen jàppale doomi africain yi. ndeysaan surtout doomi Sénégal yi. ndeysaan. def émission neexul. lay neexul. Euh, euh, waxtaan ak nit yi itam yombul. te mm. surtout domaine bi ngeen nekk. Mm. pour bugg a jàppale ay nit. Mm. nit am na ñeneen ñu koy gisee. bu rafet am na ñeneen ñoo koy gisee seen bopp ngeen koy utal. Mm-hmm. waaye nag nit ki sooy def lu baax rek da ngay def lu baax. dëgg la te yàlla tax. ok gis-gis yi moo bokkul. Mm-hmm. te adduna bi moo doy waaru léegi. dëgg la adduna bi dafa doy waar. kay adduna bi moo doy waaru du adduna bi moo doy waaru nit yi ñoo doy waar. dëgg la dëgg la. adduna mosul change. wallaay fa jant bi daan fenkee fa lay fenkee te fa mu daan sowee fa lay sowee am na solo. te loolu nag su demee ba nit yi changé. Mhm. ñu bugg a defar wala ñu bugg a fàttaliku nit yi fu ñu nu ñu meloon démb. allo mhm. allo maître. jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax maître Adama Balde woon nañu fi ci jamono ca bànjul jamono bi mu nekk Mauritanie may nuyu képp koo xamante ni yaa ngi Mauritanie Oumou Diop Marème ñoom ñëpp ña nga fa euh, Ramatoulaye kan maa ngi koy nuyu di ko ziar waaye di ziar itam soxna Paya Guèye di kontaan ci moom Michel bu Maguette Naar ñoom Yacine ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Houré Ndiaye sama doom waaye nag sama xel dem ci ki nga xamante ni mooy Kor Mansour aw buuru këram euh, di ki nga xamante ni rek mooy bu Sow ma koy nuyu bu baax a baax di ko ziar lu waaye def sa boppa ah, kenn deful kenn dara. Euh, lu waay def sa bopp te nag euh, ka mu jëm ci nit ka mu jëm ci keneen ak keneen lu mu ci mën mënti doon rek euh, yàlla moo tax ñuy def yàlla xam na te nag ni ma leen ko waxee rek kersa lay doon ci ñun boobaak léegi ñu di ko wax ñaari saaku ceeb rek tëdd fii ak kees gu def ay yére ak tuuti te doom aadama yi waroon mën a def lu ëpp loolu nañ ñu jàppale waaye ci kàttanu borom bi te yàlla tax Euh, ni ko mbokk mi waxee soxna si am na lu bari loo xamante ni dund na ko yoo xamante ni expliqué nañ ko ci ay kër yi wax na dëgg escroc yi bari nañu waaye loolu yëpp nee na mu jël lépp teg ci loxo yàlla waaye nag nekk nit koo xamante ni nit ku ànd ak dal la nit ku maandu la waaye tam nit ku ragal yàlla la ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla yàlla jàppale ko yàlla taxaw ko waaye nag ni ñu koy waxee rek euh, ana li ñuy bàkkoo nañu jàppalante te yàlla tax wax naa leen ko jëf dañ koy fekk fa ñu jëm ku mu neex nag booy voyager nga yóbbaale say bagage ci jamono waaye yomal xiyaam moom feret ba day dem lu ñu fa def fa lañ koy fekk yàlla na doon loo xamante ni lu bari lay doon doon loo xamante ni kenn du ko mën a peser waaye itam doon itam loo xamante ni ngëneel lay doon lu baax lay doon ndax mbaax rek moo am solo mbaax rek moo noppal nit ñi te it loolu rek mooy li nga xamante ni moom moo sakkan kon donc dañuy jaajëfal képp koo xamante ni baax nga wala nga bëgg a baax ndax ni ma koy waxee rek xol boo dem rek bëgg a baax nga ca xëy na peut-être yàlla mooy yemalewul mbir yi ba tax na léeg-léeg ñi nga xamante ni sax ñoo gën a néewle ñoom la xolub solidarité nekk ci ñoom kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla rek yàlla yàlla defar seeni mbir defar itam mbir yi képp koo xamante ni yaa ngi toog di ñu setaan di wax ne diggé yi bari na promesse yi nga xamante ni am nañ ko de partout dégg ngeen soxna si duggoon keroog rek di wax ne dinaa dem ci diw muy benn leader bugguma fa sax tudd affaire politique ndax xëy na peut-être bokkuñu ak ñoom yoon dinaa dem ci diw dinaa lijjanti naa ba xam fu mu dëkk maa ngi leen di wax xëy na ñu bari ñu ngi toog di taataan ne xëy na peut-être kooka dina def dara furaas daal di xëddeen keroog laa ko mujjee dégg il faut ñu leeral ko keneen ak keneen ak keneen noonu lu mu ci mënti doon daal dina leer di wax ne ka mu wax ne moo ko daan jàppale te ñu ne bu ko ay mbokkam déggee jabaram mi ngi Dubaay ñooñu itam xëy na peut-être dañ koo déggagul waaye ñi nga xamante ni jot nañ ko dégg itam am nañ ak ñoom ay projet amaana sax xëy na tey ci ngoon ji dinañ gisanteeg ñoom lépp loo xamante ni jot nañ koo am ñu jël ko jébbal ko waaye nag ni ma leen ko waxee woon rek defi la boo xamante ni dama ko bëggoon relever julliti yàlla yi li ñu àttan ci seen moroomu jullit lu mu mënti doon bu dee kilo la dinaa ko wane bu dee ay ton la itam dinaa ko wane ndax message la bu ñu jàllale te wax naa ni bëggoon nañ ñu jàppale ñu ci lool mbokk allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, Mbaye Thiam. waaw sama sëriñ tur wi. si. si Saawande tur bi naka la. Euh, Ibrahima si. naka. allo. awlala bëgguma woon mu dagg xam naa ci njaboot gi la bokk. ba ak dara maan maa ngi taxaw di la xaar de. Euh, bu jàpp ndalee rek ñu bàyyi ko mu dugg. jaar ci vingt 88 628 69 69 00 221 33 841 09 31 mu doon numéro bi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen di wax ne rek euh, noonu la te it nag boobaak léegi ñoom ñu ngi xëcc pour dugg may ñaan rek ci kattanu borom bi ak mbaaxu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla yombalal ba mu dugg su ko defee euh, ñu indi seeni kàddu euh, ci biir semaine bi itam dinañ leen dalal. waxtaan ak ñoom ci kaa yu demee nii ndax dama leen ko wax rek duma ko ndawal dafa am fu mu xëccu jóge am fu mu xëccu jëm te fa mu jëm nag wax naa ni jëmukaay la kon euh, jamono la rek mbokk allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam sama sëriñ. Euh, Mbaye waaw tur bi naka la. Ibrahima si sëñ Ibrahima Sy ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di delloo ziar. Mhm. di leen jukkal. jërëjëf si. Eh, di leen ñaanal yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si. yàlla guddal seen fanaan te may leen wér. Mhm. Eh, te bàyyi njaboot gi jullit ñeeg ñëpp sunu kanam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bi si. li ma bëgg a wax nag bariwul. Mhm. allo. oh là là daggaat na li muy bëgg a wax bariwul naa ko dénkaat eh, yàlla ak yonent beeg eh, sallallahu alayhi wa sallam ak eh, maam Abdou Aziz Sy baax sunu baay boobu nga xamante ni amul murit tijaan laayeen xaadir ñëpp àndandoo ne baax na mu jàppandalal ñu ligne bi laataa juróom benn simili yi ñu dese su ko defee rek mu dugg indi li muy wax lu mu lëndëm lëndëm lëndëm des na ko mës a mën a dégg mbokk allo. Euh, waaw. waaw dama doon wax ne jigéen yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama ni bu fekkoon ne julli si yàlla yi lu toll ni Sénégal ne julli si yàlla yi di ñoom ci seen bopp mhm. muy ñun ñëpp mhm. ndax képp kuy woote wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulillah mhm. war ngaa mën a jokkoo jël jukko yonent bi ba mu doy dëgg la nga am ak nga ñàkk war ngaa boole ñàkk googu muy sa am nga am am nga di ko sédd ak doomu aadama yi nga xam ni yàllaa leen sàkk fala budd képp ku ñu sàkk yonente bee tax ñu sàkk la mm-hmm. kon kenn ku ne buy woote ne dafa sopp yonente bi te du def la nga xam ni moom la yàlla digaale mm-hmm. doog ngay seet sa moroomu jullit bi am lu mu lekk wala du am fu mu tëdd wala du am lu mu jox ay njabootam nga yaakaar ni ëllëg ci sa kaw soppi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ci sa gémmiñ nga newul ci sa biir man dama na kon nit ji li ñuy woote newul ci ñoom ndax képp ku sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waruloo seetaan jullit muy sa morom lenn lu tam ni tarafatal ay nit di ko dal yow toog fa nga war a toog féex ma nga war a féexe gis sa moromu jullit di sonn ci àddina tey heure bu ma jógee di wax ne man kat dama sopp yonent bi sallallahu ndax yaa ngi maa ngi lay dégg bu baax si bu fekkoon ne tey jii doomu aadama yi fi nekk ñëpp boo leen mu dëgg muy xàqika lu teg ko ci yoonu dunia na sunu maam yi nekke woon nu sunoo lekk bàyyi doomu aadama bu doon benn pepp dugub lañu am ñu koy séddoog doomu aadama yi muy sutura si yàlla ngir dugg ci li nga xam ne mooy sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa wala alihi wa sahbihi wa sallama tey bu ñu ko doon dundee Sénégal du mel nii mu mel. wallaahi wallaahi. lay si dëgg la yow dëgg la wallaay dëgg la si. ndax kenn ku nekk yaa ngaa seet la nga xam ni. moom nga am. Hmm. bëgguloo mu wàññeeku. Hmm. lu dul yokku.